nettali naa nag Senghor jëkk a denc mujj na jullit ak a denc yooyu ngi ci ba sama relation moom moo àggoon ci ma dindi kenn ci sama set yi ci daayira bi boole kook moom parce amul woon doom bu jigéen bu góor rek la am yóbbu na ma sax ba ci kër papaam ni ma boo ko soxlaa nga jël ko kenn nekkatu fi léegi wax na dëgg kër ga mucc na ayib waaw mu ngi ca Paris mucc na ayib waaye rek bi ma ci xalaatee ma ni ko bàyyil ba ma gis sama avocat ba ma gisee avocat bi mu ne ma daal du jekk mu ne ma du jekk ndax dafa am aspect politique comme foofu la Senghor nekkoon mu ne ma dafay dal di am aspect politique te booye boo bàyyi rek bu yàlla dogalee nga bëgg dëkkukaay fii ci Paris mën naa la wutal appartement ndax moo fi gën a siiw léegi kër dafay laaj nga yóbbu fa ay nit dafay bari xaalis mais bu dee appartement baax na ma ni ko ah, dafa mel ni man daal am fu ma dëkk ca Ndakaaru moo ma gën a am ko ci Paris nag sincèrement ma ni ko boobu daal loolu la yàlla dogal mujj mu jox ma raison waaye mu ni ma rek ngeen bàyyi xel ci pays africain yi ndax du am jàmm ba faaw nag am jàmm ba faw ngeen bàyyi ci xel rek te ngeen di ñaan di ci boole ni ma ndax loo gis am na noon waaw loo gis rek am na noon ba ci réew ma ko ba tey ah waaye nuy ñaan ñaan yi moom duñu ko bàyyi mukk tabarkalla